ah di bis boo ne weer woo xam ne wii nag weer wu màgg la weer wu tedd la ah, ni ko Cheikh Ahmadul Xadim waxee ci yaa xayra dayfin goo bi nga xam ne mooy xasida goog yi ci nuyoo bi ak xasida gam ko tàggoo yooyu yëpp nag di firil ne ni sëriñ bi moom bu weer wi masaadik amutul jenn yitte ci àdduna lu dul rek weer week la ca aju ak nañ koy taxaweek nañ ko na la ca war Euh, di di di di ca soññe di di di di di ca bégle di wër nit ñi di leen joxe xéewal di leen euh, teral boole ko mbégte ba nga xam ne na nañu ne aaju ju waaye masa am sax da ko daa dégge nége awalu ramadan lu ko ca waay masa wax rek mu defal la ko ndax mbégte gi nga xam am na ko ci weer wi naka noonu bu ko daa tàggu lu ko nit danaa wax te nu dara ak gan gi nuy bëgg a tàggu kon nag nun sun sun royteef leeral nañ Cheikhul eh, xadi fi mu teg weer wi ak ni mu ko doon dundale ak ni mu ci doon def nan ci bokk maase jàpp ko taxaw ci lislaam ji bu baax taxaw ci diina ji bu baax taxaw ci taalibe gi bu baax eh, ñaanal Sëñ taxa bu baax a baax a baax toogaayam bii saa borom yàggal ko mu nekk koo xam ne kii li ci xol bi ak li ci yéene ji eh, lam ñu mënu koo tudd ba képp ku di taalibe te xam ko déglu ko muy wax da nga xam ne li mu ëmb ci xolam ak li nga xam ne moo ne ci xel mu bëgg ko wax lam ñuy mënu koo taatan bu wax ko loolu ñun ñëpp xamandoon nañ ko parce que bu rafet ak taalibeem waaye yàlla nañ yàgg ci ginnaaw mu yàgg sun kanam di ñaanal bokki taalibe yëpp di leen ñaanal yéen murid yi ak ñi nga xam ne ñoo fi teew ci rajo yi yàlla nañ ko teewee na gën déwén kullu amin wa antum bi xayrin wa salaamaaleykum wa rahmatullah ala sayidina muhammad wa sallam waaye bu naa fi fi ma daaye saafi bismillahi rahmani rahim allahuma ya akramu salli ala sayidina muhammadin alfatihi lima uxliq walxaatimi lima sabaq annaasir alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaq qadri miqdaari asim wajal haati lamdaha jaalibatan ila alimaani walislaami walihsaani wa ila sahaadati daaimati farrihi biha rasulillahi sal allahu taala alayhi wa sallama haysu quriyat aw kuribat aw nasra ilayha abadan amin ya rabbal alamin واجعلها مما تتخنى بها الهور الحين والولدان في الجنة التي وعد المتقون واجعلها منا بسكر إليك إلي عليه الصلاة والسلام بسم الله ينمولها بلا مناه ولا انتهاء حمدا لربي خير مربي قدر ما قلبي بالاقتداء لو سكوري بلا كفوري وهو نسيري منه في داي لو اقترابي بلا اقترابي لو ختابي مع اهتدائي لك ردائي لك سنائي لك التجائي مع اعتدائي يا من سفاني يا من حماني حمن جفاني bi max wi daayi asbil sutuuri aslih umuri kasir xuyoori bilaa ki daayi yaa man ajaaba man istajaaba habli ijaaba fi sanni daayi yaasal jamaali yaasal jalaali yaa xayra waali safi luhaayi yaasal wuhuudi yaasal wujoodi kulli bi joodi bila intihaayi safi wusuuli bila xufooli li jud bi suuli jamil ridaayi habli tilaawa mahal halaawa habli diraaya ladal adaayi aslahta haali bila irtihaali bidihyaali bila bukaayi laqbal mataabi wahmi janaabi wasun maabi jawit sakaayi xinil xaruura wamul xuruura habli nusuura maatikaayi udli nawaala yunmi kamaala yaa man tahaala han surakaay si taxu daaya qutaadaaya libiridaaya duna sikaay yaa xayra muxni axna bi man ni xalay usni bila xalaay laka sukaari hinda duyaari yaa dal xusaari bila jalaay yaa man kasaani yaa man saqaani yaa man hamaani hanil xalaayi anta muraadi anta himaadi nawir fuaadi yaa sadbiyaayi سسهت عيبي أسبت ريبي طهرت جيبي كالأسفياي أنهيت سيري طيبت ميري kulli bi xayrik kalat xiyaayi yaa xayra muuyi kulli bi raayi wa xayri saayi kalaskiyaayi habli istiqaama qinil malaama hablil karaama bisil liwaayi bisil jamaali bisil kamaali bisil mahaali bisil dawaayi bisil xibaada bisil ifaada bi xarqi xaada li lawliyaayi bisil nawaali lazil xitaali murdi rijaali alasxiyaayi bisil saxaaba salil ijaaba jaalil kaaba sawi diyaayi bisil xuroobi jaalil xuroobi نور الأريب ماهر رياي ساك المنير ساك البصير لو أسير بس السناي لو خطابي بلا هتابي ولا هجابي ولا هناي ساك المنير ساك البصير لو أسير بس السناي loo xitaabi bilaa xitaabi wala ijaabi wala xanaayi xayral balaaya yaasal masaaya yaasal xataaya safi binaayi anta suruuri bilaa xuroori safi buroori nawir finaayi fika aqulu wala xoolu فيك أقول بلا فناي هني جساك رب هداك فوق مناك يوم الجساي جساك ربي يا خير هيبي خير مهابي بلا ارتساي assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu alhamdulillahi rabbil aalamiin ngi gën a sant sunu boroom bu baax noo ngi sant sunu boroom bu baax moom mi nu booleeg sëriñ bi boole gi munu booleek sëriñ bi sëriñ bi di sant sëriñ bi moom mi nga xam ne mooy sunu lépp tey ak ëllëg moom mi nga xam ne mooy sunu léppi tey ak ëllëg lu mat a wax wax na ko ñu xam ne itam lu mat a wax wax na ko moom sëriñ bi lu mat a def def na ko lu mat a def def na ko lu mat a digle digle na ko lu mat a digle digle na ko bàyyiwul dara bàyyiwul dara ba tax na ba tax na waxuma sax jaamu sunu borom mi nga xam ne moom rek moom rek la bëgg ci noonu waxuma sax jaamu sunu borom jaamu sunu borom mi nga xam ne loolu rekk la bëgg ci noonu liggéeyal ko liggéey bu sel bi nga xam ne mooy suñu njëriñal tey ëllëg waxuma la liggéeyal ko liggéey bu sel boo xam ne mooy suñu njëriñul tey ak ëllëg waaye dañ ko ameel cant gu rëy rëy waaye dañ koo ameel cant gu rëy rëy mu ne su ko wax ci làmmiñ su koo wax ci làmmiñ ci jëf rek lañ ko mën a euh, lañ ko mën a euh, wane suñu kem kàttan ci jëf rekk lan ko mën a wone ci sem sun kem kàttan alhamdulillahi rabbil alamin liggéeyam bu rëy bii sant nañ ci bu baax a baax sant nañ ci bu baax a baax ndax lépp mooma dafa fekk na nag dafa fekk na nag doomu aadama dafa doyadi doomu dafa doyadi ba tax mu mel ni dafa am dafa dafa mbooloo mi dafa xaaj ba tax mu mel ni mbooloo mi dafa xaaj am ñu farlu lool am am ñu farlu lool nam ko bëggee am ñu sàggan lool ca ko bëgge am ñu xam lool hmm. ak jubloom am ñu xam lool ak jubloom am ñoo xam ni am nañ ca kumpa lool am ñoo ne am nañ ca kumpa lool loolu lépp nag hmm. loolu lépp nag farloog sàggan rek fi nekk farloog sàggan rekk moo fi ne lam bëgg lépp am na ko tey ëllëg moom lam bëgg lépp am na ko tey ak ëllëg yërëm jaam ñi rek moo tax mu bëgg ñu nekk ci lañ war a nekk yërëm ñi rek moo tax mu bëgg ñu nekk ci lan war a nekk lan war a nekk nag du dara lu dul jaamu yàlla lan war a nekk nag du dara lu dul jaamu yàlla ak liggéeyal ko liggéeyal ci lépp lu baax ak liggéeyal ko it ci lépp lu baax adduna sax naka jëkk lii nu ci metti tiital nu ci mos fee jóg sax naka jekk lii nu tiit tiital nu sax mosu cee jóg muy càggante gu ëpp gi muy càggante gu ëpp gi mosu fee jóg mosu jóg waaye nag rawatina suñ jamono jii. waaye rawatina nag suñ jamono jii. dafa mel ne li dafa mel ni li ëpp ci mbooloo mi. àdduna fàbbi na leen. adduna fàbbi na leen. ba talatuñu sunu boroom. ba talatuñu sunu boroom. talatuñu it alaaxira. talatuñu it alaaxira. yaatu na lool. nee na loolu yaatu na lool. waaye li war a gën a sant sëriñ bi. waaye li war a gën a sant sëriñ bi. dëkkam bu sell bii. bu sell bii. am na ci ñoo xam ne suñu boom may na leen tawféex ju am na ci ñoo xam ne suñ boroom may na leen tawféex ju rëy rawatina ñi nga xam ne ñoo ko nekkal ci diine ji rawatina ñi nga xam ne ñoo ko nekkal ci diine ji ak ñi takkook ñoom ak ñi takkook ñoom duñ duñ teqalikook ñoom wenn waxtu lépp ngir xam seen warteef lépp ngir xam seen warteef ak xam bëggug sëriñ bi ak xam bëggug sëriñ bi ñu nekk ci diggante boobu ñu nekk ci diggante boobu di jullit yu mat di jullit yu mat di taalibe yu mat loolu fa tabaarakallaahu am na fi eh, waaye nag waaye nag càggante gi moom càggante gi moom yaatu na lool yaatu na lool te doye dig doomu aadama dëgg la te doye doomu aadama dëgg la waaye càggante gi nag moo ëpp waaye càggante gi nag moo ëpp waaye sëriñ bi moom lu nit xamadi xamadi. xam ne ko gisee bañ ko noppee ne biñ ko gisee biñ ko gisee ba noppi ko gis. tëlu fi lu dul boromam. leneen lu dul boromam. lu dul ndigal lim am ci yonent bi. lu dul ndigal lim am ci yonent bi. mu nekk seen diggante. mu seen diggante. bawul dara lu baax. bawul dara lu baax. bawul dara lu baax. lépp. lépp. def na ko. def na ko. luñ mën a teg bët. luñ mën a teg bët. luñ mënta teg bët. ak luñ mënta teg bët. waaye luy luy lu baax. waaye luy tegtale lu baax. sëriñ bi def na ko. sëriñ bi def na ko. yërëm gi mu yërëm jàmm ñi itam. yërëm gi mu yërëm jàmm ñi itam. tax na teg na wane na yoon wa nga xam ne. moom la bëgg. nu tegu ca tax na wane na yoon wi nga xam ne moom la bëgg nu tegu ca muy rek fonk suñ diine mooy fonk suñ diine fonk suñu taalibe rek fonk suñu itam fonk suñu taalibe itam ndax diine ji moom fi la ko fekk ndax diine ji moom fi la ko fekk waaye bi mu ñëwee itam waaye bi mu ñëwee itam la ca war lépp def na ko. la ca war lépp def na ko. taalibe gi moom. taalibe gi moom. naka jekk suubu yoon suubu yoon yàlla mi ngi fi woon. naka jekk suñu yoon yàlla wi mi ngi fi woon. waaye nag. waaye nag. moo taxaw fii. moo taxaw fii. fa ñu ko gisee rek lañ lañ lañ tàmbalee gis. fa ñu gisee ko gisee rek lañu ñu tàmbalee gis. taxawaayam bi mu nam ma taxawal boroomam. taxawaay bi mu nam ma taxawal boroomam. ca loolu la nekk. ca loolee la nekk. jaar fa mu war a jaar fépp. jaar fa mu war a jaar fépp. def la mu war a def lépp. def la war a def lépp. wàccoon naa waa waa suuf. wàccoo naag waa suuf. wàccoo naag waa kaw. wàccoo naag waa kaw. lépp it. lépp ci boromam rek ci boromam rek. kon nanu góorgóorlu bu baax. kon nanu góorlu bu baax. delloo delloo sunuy xel. delloo sunuy xel. gën a yëngal sunuy xol. gën a yëngal sunuy xol. jëmee ko ci lim nu fi bàyyil. jëme ko ko ci li mu nu fi bàyyil diine ji rek la fi bàyyil diine ji rekk la nu fi bàyyil ak liggéeyu boppam bu rëy bi ak liggéeyu boppam bu rëy bi nga xam ne ak taalibe ci jóge bi nga xam ne ak taalibe ci la jóge kon li nu war mooy góorgóorlu bu baax kon li nu mooy góorgóorlu bu baax wattandiku càggante wattandiku càggante adduna fàbbi na fàbbi nanu adduna fàbbi nanu ba tëlatun lu dul dul moom ba tëlatun lu dul moom te lanu jig dey te lanu yëg dey lanu jig lanu jig dey mooy jaamu yàlla. mooy jaamu yàlla. jaamu yàlla rekk nu yàlla rekk nu jig. waaye sàggane sa diine. waaye sàggane sa diine. du la yóbbu ci jaamu yàlla. du yóbbu ci jaamu yàlla. te du la bàyyeeg neen itam. te du la bàyyeeg neen itam. ndax ginnaaw tëlatunu sunu boroom tëlatunu tëlatunu alaaxira gën jëm ginnaaw talatunu sunu boroom talatunu alaaxira gënu jëm ngir àdduna ji rek ngir àdduna ji rek te day te day ki xamal ñi xam te day ki xamal ñi xam ñi xam-xam lam leen xamal. ñi xam-xam lam leen xamal. dégg nañ wax ba. dégg nañ wax ba. adduna bu fekkoonte ne sunu borom da koo yemale woon ak laafu yoo. su adduna bu fekkoon ne sunu borom da koo yemaleeg laafu yoo. kon ab yéefar du ci am kaasu ndox bu mu naan. kon ab yéefar du ci am kaasu ndox bu mu naan. kon adduna amu jërul dara. kon adduna jërul dara. te nekk ci li nga war a nekk. te nekk ci li nga war a nekk. du yàq dara ci li fay ñu yem yàq dara ci ñu ci fañ nu yem loo ngi lekk ñoo ngi naan. Mm-hmm. noo ngi lekk noo ngi naan. noo ngi sol mbubu. noo ngi nekk ci kër. noo ngi nekk ci ay kër. ay xéewal yu bari. ak ak ay xéewal yu bari. waaye loolu lépp. waaye loolu lépp. ndimbal rekk la war a doon. ndimbal rekk la war a doon. mu jublu su su su sunuy xel. ñu jublu sunuy xel. ak sunuy xol. ak sunuy xol. mu nekk mu nekk ci nun yitte. mu nekk ci nun yitte. góorgóorlu ba bañ a yittewoo lu yàlla. góorgóorlu ba bañ a yittewoo lu dul yàlla. lu nu du nu doyadi doyadi. lu nu doyadi doyadi. mën na noo yittewoo sunu borom. mën na noo yittewoo sunu borom. jiital ko ci sunu yitte. jiital ko ci sunu yitte. lañ nu ayalul lañ nu ayalul lañ nu ayalul sañ nañ koo jëfandikoo sañ nañ koo jëfandikoo gan gu rëy ngi nii nee na gan gu rëy a ngi nii gu bari njariñ gu bari ay njariñ gu sëriñ bi fonk gu sëriñ bi fonk kon nanu góorgóorlu kon nanu góorgóorlu fa tabaarakallaahu fa tabaarakallaahu ñooñ ñooñ sëriñ bi ñooñ sëriñ bi wax ji taxuleen a jóg wax ji taxu leen a jóg ndax ñoom ñu ngi ci nekk ci li ñu nekk ndax ñoom ñu ngi ci li ñu nekk taluñu àdduna ñu àdduna ngir ngir xalaat seen digganteeg seen boroom. ngir xalaat seen digganteeg seen boroom. ak jaamu ko seen kem kàttan. ak jaamu ko seen kem kàttan. kon kenn ku ne. kon kenn ku ne. xam nga sa bopp. xam nga sa bopp. bu càggante nekkee ci yow. bu càggante nekkee ci yow. xam nga ko. xam nga ko. bu farlu nekkee ci yow. bu farlu nekkee ci yow. xam nga ko xam nga ko. te ñi farlu. te ñi farlu. lu ñu def xeeb nañ ko. lu ñu def xeeb nañ ko. seen diggante seen borom seen diggante seen borom. ñi sàggan nag. ñi sàggan nag. càggante càggante gi day gën a day gën a yokk rek. càggante gi day gën a yokk rek. boo xamee tëralu sa bopp. boo xamee ne taloo lu dul sa bopp taloo lu dul àdduna taloo lu dul àdduna a ah, loolu bu dee mbooloo ah, loolu de bu dee mbooloo ñu ànd ci càggante ñu ànd ci càggante lu dal ñoo ko teg seen bopp lu leen dal ñoo ko teg seen bopp bu dee kenn par kenn mu dee kenn par kenn kenn ku ne kenn ku ne la ko naqari ci boppam la ko naqari ci boppam càggante génn ca càggante càggante génn ca ku jublu sëriñ bi ku jublu sëriñ bi càggante dana day jeex ci yow càggante day jeex ci yow am sëriñ bi dëgg la doy na tawféex. am sëriñ bi dëgg la doy na tawféex. waaye nekkal ko ci lim bëgg nag. ko ci li bëgg nag. mooy tawféex ju rëy mooy tawféex ju rëy ja alhamdulilah. góor eh, góorgóorlu bu baax. nañ góorgóorlu bu baax. suñ gan gu tedd gi. suñ gan gu tedd gi. nu nu nu nu gaaw nu nu góorgóorlu gaawtu ci. ñu gaatu ci. ba delloo sunuy xel ba delloo sunuy xel yëngal sunuy xol yëngal sunuy xol sunu yitte jëpp sunu yitte jëpp ñu gàttandoo ko suñu kem kàttan ñu gàttandoo ko ko suñu kem kàttan bu nu góor góorloo lu nu gën a góorgóorlu lu gën a góorgóorlu lépp di gën a yomb lépp di gën a yomb lépp di gën a barkeel. lépp di gën a barkeel. waaye lu nu gën a sàggan. waaye lu nu gën a sàggan. jafe-jafe yi ñuy wax. jafe-jafe yi ñuy wax. muy baat bu xew ci jamono ji. muy baat bu xew ci jamono ji. dara andiwu ko. dara andiwu ko. lu ñàkk nekk ci li nga a nekk rek. ñàkk a nekk ci li nga war a nekk rek. njàmbar njàmbat li matu ko matu ko lu nu dal lu nu dal noo ko teg suñ bopp moo ko teg suñu bopp téere yi bañ te maam Adama ba léegi mi ngi wàcc doon ba na ba ci alxuraan. téere yi maam Adama ba ba ba léegi ci wàcc na ba ci alxuraan. lépp lépp luy tax a mucc. lépp luy taxa a mi ngi ci mi ngi ci lépp luy tax a raw lépp luy tax a raw mi ngi ci mi ngi ci lépp luy tax a texe lépp luy tax a texe mi ngi ci mi ngi ci lépp lu yóbbu àjjana nit lépp luy yóbbu àjjana nit mi ngi ci mi ngi ci kon nan góorgóorlu kon nan góorgóorlu wattandiku ak càggante wattandiku ak càggante kenn ku ne ci nun kenn ku ne ci nun na def sam kem kàttanam na def kem kàttanam ngëm gi ngëm gi ak yitte ji ak yitte ji ak jëf ji ak jëf ji bu ci kenn xeeb dara bu ci kenn xeeb dara lu nu doye di doye doye ci nekk suñu kem kàttan nan ci nekk suñu kem kàttan ngàttanu ndimbal mën caa fekk ngàttanu ndimbal mën nañu caa fekk waaye dem ba nga xam ne waaye dem ba nga xam ne talatoo sa borom talatoo sa borom talatoo alaxira talatoo ah, loolu jërul njàmbat nee na loolu jërul njàmbat ndax njàmbat li du jëriñ dara ndax njàmbat li du jëriñ dara te day dolli jote rek te day dolli jafe-jafe rek jafe-jafe yi moom siw na xew na lool fi mu ne. jafe-jafe yi moom xew na lool. jafe-jafe nag dara andiwu ko lu càggante. jafe-jafe nag dara andiwu ko lu jàggante ku ku ku ku danaa wax ne ku gëm yàlla. dañuy wax ne ku gëm yàlla. gëm alaaxira. gëm alaaxira. il faut que nga soppi saw doxin. il faut nga soppi saw doxin. soppi saw doxin nag. soppi saw doxin nag. nga góorgóorlu. mooy góorgóorlu. jéem a xam yàlla digle. jéem a xam li yàlla digle. jéem a xam li yàlla tere. jéem a xam li yàlla tere. nga di ca góorgóorlu sa kem kàttan. nga di ca góorgóorlu sa kem kàttan. jéem a xam lu baax. jéem a xam lu baax. jéem a xam lu bon. jéem a xam lu bon. di bëgg lu baax. di bëgg lu baax. di jéem lu baax waxtu lu baax waxtu wu ne. xam lu bon. xam lu bon. di ko jéem a daw sa sa xelu bakkan. te di ko jéem a daw sa xelu bakkan. loolu. jafewul loolu jafewul. xanaa ñàkk xam rek. ñàkk a xanaa ñàkk xam rek. waaye ku ku ci mos loolu. waaye ku ci mos loolu. te muy dëgg ci yow. te muy dëgg ci yow. dootoo kuy wax ay jafe-jafe. dootoo kuy wax ay jafe dootoo kuy jàmbat dootoo kuy jàmbat ndax da xam ni am na lu xew ci yow. ndax dangay xam ne am na lu xew ci yow. loo xam ne. <laughs> loo xam ne. ndollan rek nga cay soxla. ndollan rek nga cay soxla. ah di bis boo xam ne weer woo xam ne wii nag weer wu màgg la weer wu tedd la ah, ni ko Cheikh Ahmadul Xadim waxee ci yaaxaare dayfin goo bi nga xam ne mooy xasida goog yi ci nuyoo bi ak xasida gam ko tàggoo yooyu yëpp nag di firil ne ne sëriñ bi moom bu weer wi masaadik amutul jenn yitte ci àdduna lu dul rek weer week la ca aju ak nañ koy taxawee nañ ko na na la ca war di di di di ca soññe di di di di di ca bégle di wër nit ñi di leen joxe xéewal di leen eh, teral boole ko mbégte ba nga xam ne wax nañu ne aaju ju waaye masa am sax da nga ko daa dégge nége awalu ramadan lu ko ca waay masa wax rek mu defal la ko ndax mbégte gi nga xam am na ko ci weer wi naka noonu bu ko daa tàggu lu ko nit danaa wax te dara ak gan gi nuy bëgg a tàggu kon nag nun sun sun royteef leer nañ Cheikhul eh, Khadim fi mu teg weer wi ak ni mu ko doon dundale ak ni mu ci doon def nan ci bokk maase jàpp ko taxaw ci lislaam ji bu baax taxaw ci diine ji bu baax taxaw ci taalibe gi bu baax eh, ñaanal Sëñ taxa bu baax a baax a baax toogaayam bii saa borom yàggal ko mu nekk koo xam ne kii li ci xol bi ak li ci yéene ji eh, lam yu mënu koo tudd ba képp ku di taaliba te xam ko déglu ko muy wax da nga xam ne li mu ëmb ci xolam ak li nga xam ne moo ne ci xel mu bëgg ko eh, lam yi mënu koo taatan bu wax ko loolu ñun ñëpp nañ ko parce que fam bu rafet ak taalibeem waaye yàlla nañ yàgg ci ginnaaw mu yàgg sun kanam di ñaanal bokki taalibe yëpp di leen ñaanal yéen murid yi yàgg ñi nga xam ne ñoo fi teew ci rajo yi yàlla nañ ko teewee na gën déwén kullu amin wa antum bi xayrin wa salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf ala sayidina mu def samal sima waaye bu naa fi fi ma daayi saafi bismillahi rahmani rahim allahuma ya akram salli ala sayidina muhammadin alfatihi lima xuliq والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مقدار عظيم واجعل هذه الأمداها جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السهارة الدائمة فرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرئت أو قربت أو نصر إليها أبدا آمين يا رب العالمين واجعلها مما تتخنى بها الهور الهين والولدان في الجنة التي يتقون واجعلها منها بسكر إليك وإليه عليه الصلاة والسلام بسم الإله ينولها بلا مناهي ولا انتهاء حمدا لربي خير مرابي قدر ما قلبي بالاقتداء لو سكوري بلا كفوري وهو نسيري من فداي لو اقترابي بلا اقترابي لو ختابي مع اهتداي لك ردائي laka sanaa'i laka iltijaa'i ma'a ihtidaa'i yaa man safaani yaa man hamaani haman jafaani bi mahwi daa'i asbir sutuuri aslih umuuri kasir xuyóori bilaa kidaa'i yaa man ajaaba man istajaaba habli ijaba fi sannidayi yaasal jamali yaasal jalali yaa xayra waali safilu haayi yaasal wuhuudi yaasal wujoodi kulli bi joodi bilantihaayi safi wusuuli bilaa xufooli li jud bi suuli jamil ridaayi habli tilaawa mahal halaawa habli diraaya ladal adaayi aslahta haali bila irtihaali bihdi hiyaali bila bukaayi naqbal mataabi wahmi janaabi wasun maabi jawit sakaayi قني الحرورة وملحرورة حبلي نسورة مع اتكاي ادلي نوالا ينمي كمالا يا من تهالا هم سركاي ستهدايا قتادايا لبرضايا دون استكاي يا خير مغني أحنا بمني halay usni bila halay laka sukari hinda duyari ya usari bila jalai ya man kasani ya man saqani ya man hamani hanil halay anta muradi anta himadi nawir fuadi ya saddiyayi سست عيبي أسبت ريبي طهرت جيبي كالأصفياء أنهيت سيري طيبت ميري كلي بخيرك كلت خياي يا خير موي كلي براي وخير ساي كلاسكياي هب الاستقامة قني الملامة hablil karaama bisil liwaayi bisil jamaali bisil kamaali bisil mahaali bisil dawaayi bisil hibaada bisil ifaada bi xarqi haada lil awliyaayi bisil nawaali lazil qitaali murdi rijaali alasxiyaayi bisi saaba salil ijaaba jaalil kaaba sawit diyaayi bisil huraabi jaalil kuraabi nooril ariibi maahir riyaayi saakal muniiru saakal basiiru loo usiiru bisa sanaayi loo xitaabi bilaa xitaabi wala hijaabi wala hanaa doonte mucc muccaguloo ci it doonte muccaguloo ci it gën ko ragal danga ko ragal gën ko wattandiku danga ko wattandiku gën caa gën a jéem mucc ci lépp lu bon gën a jéem a mucc ci lépp lu bon dund gi yëpp dund gi yëpp loolu rek loolu rek loolu rek ci nekk loolu rek ci nekk kon nan góorgóorlu bu baax kon nan suñu kem kàttan suñu kem kàttan tënk bi moom tënk bi moom mooy góorgóorlu ci njub mooy góor góorlu ci njub góorgóorlu bu baax ci fonk suñu diine góorgóorlu bu baax ci fonk suñu diine góorgóorlu bu baax ci jëf lu baax te yàlla tax góorgóorlu bu baax ci jëf lu baax te yàlla tax loolu loolu nañ jéem bu baax a baax lan ko jéem bu baax a baax a baax jéem googu nu koy jéem jéem googu nu koy jéem te muy dëgg ci nun te muy dëgg ci nun nag nu di ko jëfe nu di ko jëfee suñu kem kàttan suñu kem kàttan loolu rek loolu rek lan mën a sant sëriñ bi lan mën a sant sëriñ bi am nañ tawféex ba nopp am nañ tawféex ba nopp waaye nag waaye nag nekk ci lu nuy may ngërëmal sëriñ bi nekk ci lu nuy may ngërëmul sëriñ bi moo gën a dal xel moo gën a dal xel sëriñ bi sëriñ bi bëgg lu nu dara bëgg lu nu dara lu dul li mu bëgg rek lu dul li te moom bëggul dara lu dul yàlla yonent te moo te mooy bëggul dara lu dul yàlla musta nekk ci dara lu nekk ci yàlla yonent bi musta nekk ci dara lu dul nekk ci yàlla yonent bi lu mu ca dolli yërëm jaam ñi bëgg leen a bëgg leen a bëgg leen a gindi bëgg leen a womat jëmale ci seen borom. lu mu ca dolli mooy yërëm jaam ñi bëgg leen a bëgg leen a womat jëmee ci seen borom. kon noonu rek la demee de. kon noonu la demee. nañu góorgóorlu bu baax bu baax. ci li nu fi indi. ci li nu fi suñu borom moo nu bind moom nu. moo suñu borom moo nu bind moom nu. moo nu fi wàccee. moo nu fi wàccee. sant nu di ko jaamu. sant nu di ko jaamu. loolu mooy sunu warteef. mooy suñu loolu mooy sunu warteef. amul leneen lu leneen lu nu jikk. amul leneen lu nu jikk. loolu dong nga nu jikk. loolu doo nga jikk. kon góorgóorlu rekk moom la laaj. kon góorgóorlu rekk moom la laaj. nanu góorgóorlu bu baax baax a baax bu baax a baax baax a baax. ginnaaw nun sëriñ bi rekk mooy suñu lépp. ginnaaw nun sëriñ bi rek mooy sunu lépp. moo war a doon sunu dund. moo war a doon sunu dund. danaa di wax sëriñ bi moom danaa di wax sëriñ bi moom yoon bi alhamdulilah yoon wi sori lool fa tabarakallah waaye ci sunu wàll waaye ci sunu wàll nun jaam ñi nun jaam ñi suñ digganteeg sëriñ bi suñ digganteeg sëriñ bi bëgg gi bëgg gi ak doyloo gi ak doyloo gi fu yoon wi àgg looloo ko fa àgg fu waaye nag xamuñu sëriñ bi waaye nag xamuñu sëriñ bi dundu nu ko itam nag dundu nu ko itam fii nu toll fii nu toll bu nu góorgóorloo bu nu góorgóorloo di ko gën a xam di ko gën a xam di ko gën a dund di ko gën a dund kaw rek la ñuy jëm kaw rek la ñuy jëm alhamdulilah ñin ko bokkal ñin ko bokkal muy sunu moroomi jaam muy sunu moroomi jaam ñun ñooñ sëriñ Tuubaa ñii ñooñ ñooy sëñ ñooñ sëñ Tuubaa ñii bu nu góorgóorloo bu nu góorgóorloo du nu kenn. du nu ñee kenn te dañu ñee rek. te dañu ñee rek ci biir ak ci ak ci biti tey jii ak ëllëg. jii ak ëllëg kon nan góorgóorlu bu baax. kon nan góorgóorlu bu baax rek loolu rek. waaw loolu rek nag moom. koor gi moom alhamdulilah. alhamdulilah nan ko ta nan nan ci yeesu. nan na nan ci yeesu yeesal suñu lépp. nee nañ yeesal suñ lépp fas yéene jëfe koor gi fas yéene jëfe koor gi fas yéene koo sellal fas yéene koo sellal suñ kem kattan suñ kem kattan nañ ci góorgóorlu bu baax a baax nañ ci góorgóorlu bu baax a baax jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf naa ngi jégalu ndax sëñ bi nee na war a wax li ñu ko wax li ñu bëgg a wax duñ ko wax ah, tàllal nañu ko tàllal الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعدهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون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 الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوه خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف

may yoon li may may yoon li may may yoon